إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk yi ñi ngi sant suñu boroom di seede ne moom dong yow ñu koy jaamu ñi ngi sant suñu boroom mi ñu yónnee woon ngeen ji yonent mu wàcceel ñu ngeen ji diine ca mooy yonent yàlla muhammad ak diine lislaam ji ñu ngi ñaan suñu boroom sax di julli ca yonent ba ak njabootam ak i sahaabaam ak ña koy roy ba ilaa yawmiddin ñu ngi màggal suñu boroom màggal ga yeyoo ki darajaam ñu ngi sant suñu boroom sant goo xam ne mun teppeek ay xéewalam gannaaw loolu mbokk jullit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax leen ci ragal yàlla bu leen déemuk lu dul fekk da ngeen a jébbalul seen boroom yéen mbokk jullit xam leen ne tey ñi ngi nekk nii ci bisu iid iid bi gën a màgg ci lislaam doonte ne ñaar rek la ci lislaam am muy tabaski ak korite suñu borom yàlla iid googee xam nañu ne da koo def gannaaw jaamu yàlla gu mag muy jaamu yàlla aj makka mbokk lii di aj makka lii di julli lii di lu mu mën a doon ci jaamu yàlla ci iid gii day ca la bokk xam leen ni day mbokk jullit lenn dong lay saxal mi ngi saxal wéetal borom bi jalla waala mooy la ca gën a màgg doomu aadama yi képp koo xamee ne nii wéral na wéetal ga muy jaamu boroomam bañ koo bokkaaleeg dara dara du ko tee dugg aljanna ak bakkaar yu mu mënoon a def dara du ko tee mën dugg aljanna bis ci bis yi amma ki nga xam ne daa mooy lii di wéetal boroomam ak tuyaaba yu mu mënoon a def dara du ko tax a dugg aljanna day sax ci sawoora ba faw loolu ñu bàyyi ci xel ci xam leen ni mbokk jullit diine yi jiitu diine lislaam yépp ña nga yàqoo bañ demee ba seen wéetal yàlla yàqu bañ demee ba commencé bokkaale ca la ñu nag sàggane leneen lu dul loolu ndax tawxiid mooy fondement bi képp koo xamee ni nii sa fondement baaxul amul lenn loo mën a tabax mu baax suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam nee na àq bi yàlla am ci ay jaamam mooy nañ ko jaamu bañ koo bokkaaleeg dara gannaaw ba àq bi jaam yi am ci yàlla mooy ku ko bokkaalewul dara dana la tabbal aljanna looloo tax sàmm jullee ka baax sàmm koor yeeg zakat yaa ka baax waaye ngalla waay la nga war a gën a nemmeeku ci yow nemmeeku ci sa njaboot mbaa ak bokkaali duggul ci yéen loolu mooy musiba yi musiba yépp gannaaw loolu mbokk jullit bokk na loo xam ne nii mboole mi jaamu yàlla dana ko dëggal ca iid gi ca la bokk mooy nag feddali gëm gi ñuy gëm suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yonent yàlla muhammad gëm kañ gën koy gëm du nekk ci làmmiñ kese muhammadu rasulullah laa naafiq yi dañ doon wax loolu waaye loolee dafa am lu koy dëggal mooy nga topp ay ndigalam bàyyi ay tereem dëggal lépp lum la wax ci mbiru àdduna ak alaaxira ca bañ a jaamoo yàlla lu dul lum la jàngal ca bañ a jaamoo yàlla lu dul lum la jàngal nga boole ca bëgg ko bëgg goo bëggul kenn ci jaamu yàlla yi màggal ko wet ko wegeel goo xam ne doo ko weg kenn ci jaamu yàlla yi suñu borom yàlla mu ne topp leen yàlla topp leen yeneen ti yàlla su ngeen wanee gannaaw day moom lenn dong lañ ko sant te mooy mu jottali leen yéen liñ leen sant mooy ngeen topp ko amaa bu ngeen ko toppee nag da ngeen jub ay yéen mbokk jullit xam leen ne yéen a ngi ci sunna bu màgg sunna yi ñaari yonent yonent bu jëkk ba mooy suñu baay ibrahim moo sunnaal lii ñu nar a def na doon aj makka ga aj makka ya waa makka taxawi wala tabaski gii ñu nar a def suñu borom moo ci doon wane misaal ci ñiy ñëw gannaawam mu def ko imaam ñeel ñiy ñëw gannaawam ci nan la war a nan la ñu war a taxawee ci ndigalu yàlla mbokk ni ñu war a taxawee ci ndigalu yàlla mooy jullit da ngay gëm ni suñu borom yàlla day nee na ishtara min almuminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yàlla mu ne jënd naa ci jullit ñi seeni bakkan ak seen alal ndax àjjana mu moom laa leen di fayee looloo tax ba jullit mooy ki jébbalu mooy ki jébbalul kan mooy ki jébbalu ñeel boroomam jébbal ko bakkanam jébbal ko njabootam jébbal ko alalam loolee moom la ibrahima alayhi salaam doon dëggal keroog ba ko suñu borom woni ci ay nelaw mu tiim ismaila di ko rendi mu daal di ñëw xam ne ismaila mii kat doomam la waaye ismaila jaamub yàlla la xam ne ismaila bii kat wuru koo jàppe bànneexu bakkanam waaye da ko war a jàppee la neex yàlla ca moom mu ñëw ne ko ay sama doom sama borom day digal na ma ma rendi la ismaila alayhi salaam daa di ne ko ay bàyyi defal li la yàlla sant da nga ma fekk ma bokk ci ñu aji muñ ya bañ demee ba dogg ba jébbulu ba mu tëral ko ngiree rendi ko suñu borom ne ko dëggal nga mbir mi loolu it ay yéen la jeunesse yéen ndaw ñi xam leen ne tey jii seen bis la bis bi na am la gën a màgg lañ cay tudd mooy Ibrahim waaye nag ka nga xamee ne nii moo yoroon drapeau bu mag ba mooy Ismaïla alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ndaw la woon waaye bi mu gisee ngërëmal yàlla mi ngi ni mu nangu ko jëfe ci joxe bakkanam lan la moo ko yóbbe ci loolu mooy baayam ba ak yaayam ju baax ja jàngaloon na ko ne àdduna di kërug jaaruwaay la kërug nattu la waaye lay sax dëgg mooy aljanna ajjana mooy fa xéewal ga sax ajjana mooy la nga xam ne du jeex ba faw ajjana mooy la nga xam ne kenn du ko comparé ak ak àdduna loolee tax na ba mu sacrifié ak dundam nangu koo joxe ci yàlla tax ngal la way yéen ndaw ñi góorgóorlu leen ba lu ngeen man ci ay diplôme ngeen ut ko lu ngeen man ci alal ut leen ko waaye loolu bu mu nekk jubluwaay na nekk ay moyen seen jubluwaay bi gën a rëy mooy naka ngeen di fexe ba tab bi la nga xam ne mooy aljanna adduna gi du dara bi ngay ñëw doo indi dara booy dem doo yóbbu dara immeuble yeeg mercedes yeeg jardin yi bu mu leen nax du dara lépp da nga ko fi bàyyi lay sax dëgg-dëgg mooy teraanga teraanga ba nga xamee ne yow ndawal julit bu dee ci sa ndaw nga commencé jaamu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na heure bu suñu borom dee atte ay jaamam yow dañ lay sempi ca mbooloo ma ne la kaay kerlu fii ci keru arash ba baa ngeen di jóg di tabbi aljanna yal na yàlla boole ca boole ca suñuy ndaw ngal la waaye mbokk julit góorgóorlu leen ñu fàttali ko waat lii nga xam ne mooy iit fàttali ko waat li nga xam ne mooy tabaski yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def benn occasion ngiree fàttali waat mbooloo mi seen ponk diine xam leen ne suñu diine ji dafa tega ci ay baasu ngëm ngëm yooyee mooy gannaaw bi nga nangoo ne yàlla dong lañu war a jaamu gannaaw ba da ngay gëm ne suñu borom mi ngi ki malaaka malaaka yooyu nga xam ne nii doo leen gis waaye foo mën a nekk ñi nga ànd ak yow yow bépp doomu aadama amul benn bis lu dul yàlla dana wàcc ci moom ñeenti malaaka ñaari malaaka ca fajar ñuy xool ay jëfam la nga xamee ne moo ca baax ak la ca bon bu tàkkusaanee yeneen ñaari malaaka ñëw remplacer ñi fi yendu loolee di leen ko bàyyi xel bu baax day leen bàyyi xel ne yàlla wàcce na ay téere téereem bi gën a màgg mooy alquranul karim ngal la way ndaw ñi temps bi ngeen di def seen portable yi calculer leen ko ngeen jël ceer ba jagleel ko seen téere boroom wallahi kon ngeen dab na sahaaba yi doon jànge alquran da ngay gis ndaw yoo xam ne li ñuy sëgg seeni portable c'est des heures et des heures mbokk jullit téere bi yàlla bi jàng leen ko jéem koo comprendre jéem koo jëfe gannaaw loolu xam leen ni suñu borom dafa yónni ay yonent ka ci mujjoon mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu àdduna dox mukk bali xew Sénégal juróomi yonent xaw ma juróom nangami yonent woote nañ Sénégal gi na yàlla leen yónni wallahi loolu amul weddi ko bu ca sax sikki sàkka ka mujjoon ci yonent yi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla da ko yónniwaat deuxième fois mu nekkaat ku ñuul wallahi loolu amul keroog ba mu faatoo ñu suul ko ca xabroom ba xabroom ba dafa génn lu dul keroog ba yàlla di wal béjjén bi doomu aadama yépp a jóg gëm leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day dafa dogal ay jaamam yàlla mooy dogal ci jaam yi lu ko neex heure boo xamee ni nii yow jaam bëgg nga dara ragal nga dara defal sa kemtaleel kattan waaye xamal ne doo mën a am lu dul yàlla dogal ci yow doo mën a mucc lu dul yàlla muccal la ci yow te mooy gëm ay dogal gannaaw loolu mbokk jullit gëm leen ne àllaaxira mi ngi ñëw lu mu yàgg-yàgg day dana mës a ñëw dem nga fay dem nag mën naa doon tey mën naa doon ëllëg waaye loo yàgg-yàgg da ngay dem sa borom yàlla ni ngay nelewe mu dekkal la sa borom yàlla bis boo dee dana la dekkal xisaab la imma nga jëm aljanna wala imma nga jëm sawara gannaaw loolu mbokk jullit xam leen ne la gën a màgg li ñuy def ci diine ji moom muy julli ismaila moomu ñu leen doon wax sànq suñu borom yàlla ba mu ko nattoo natt bu màgg boobee ba mu réussir ca yàlla wàcc ci moom ngërëmam yàlla tagg na ko ci téeréem bu tedde bi waskur fi kitaabi ismail innahu kaana saadiqa alwaad wa kaana rasulan nabiya kaana yamuru ahlahu bisalaati wa zakat wa kaana inda rabbihi mardiya ismaila day mi ngi nii sama borom yàlla mu ne gërëm naa ko kawel naa ay darajaam bokkoon na ci mandargaam dafa saxoon di digal njabootam ñuy julli di digal njabootam ñuy gën a zakaat ngal la waay sax leen ci julli dee leen ko digal seen njaboot ca mooy digal ba jëkk mooy xamal leen nu ñu koy defee gannaaw ba nga ñaax leen amul lenn loo xame ne nii dana la mën a jàppale ci yarum njaboot ci lu mel ni julli amul benn koo xam ne day sàggane julli lu dul dana sàggane leneen lu gën a garaaw loolu góorgóorlu leen ca xam ne alal jii ñu yàlla jox yàlla may ñu ko dañu koo dénk e waaye xam leen ne alal yàllaa ko moom yàlla dala koo dénk amoo droit di ca def lu dul lu neex yàlla looloo tax suñu borom yàlla farataal ci zakat boo xamee ni da nga koy war a génne ngal la waaye bàyyi leen xel loolu jàng leen nu ñuy génne zakat lu ca waaye am góor ak jigéen mu génne ko góorgóorlu leen ci matal koor matal fay bari koor ut leen projet ak makka rawatina yéen jeunesse bi ak makka dañ koy waajal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ca ña doon jihaad law araadul xuruj la aaddu lahu udda buñ bëggoon a génn jihaad duñ bàyyi ba bisu jihaad ñu naan oomu lu mu yóbbu doon nañ ko waajal avant loolu it ngeen yéen ndaw julit ni waajal leen projet ak makka sur cinq ans sur dix ans sur vingt ans yaa xam utal projet ak makka loolee ci suñu ponk diina ji la bokk gannaaw loolu mbokk julit diina jooju na mu amee ay ndigal noonu la amee ay tere la ca gën a màgg wax nañ ko mooy bokkaale waaye moytu leen la nga xam ne mooy ak njabar njabar lu bon la njabarkat du texe ku sol dàllam dem ci njabarkat du texe moytu leen ñee di seet ak pettaaw ak ak gisaaneeg lu mu mën a doon yonent bi aleyhi salaam nee na heure boo solee sa dal dem ci koo xam ne dalay xamal kumpa weddi nga ci la yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammad ndax yàlla dana man rek maa xam kumpa góorgóorlu leen moytu lépp luy jëm ci violence boo xam ne ay bakkan mën na caa tuuru inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ngeen fa dund ci weer yi ci gannaaw musiba la boo xamee ne nii ay yellul woon ci ay jullit ngal la waayoo ndawal jullit bu la kenn woo ci ay manifestation violence loo xam ne bakkan mën na caa tuuru xamal ne adduna yépp xëyoon takk moo gën a woyof ci yàlla ñu rey benn bakkanu jullit moytu leen njaaloogu bon gi bu mu leen yóbbaale li nga xam ne siiw na ci jamono ji mooy ci wàllu ngóor jigéen gu bon gi lesbienne gu bon gi ak ñoo bon ak ñoo salte bañ leen leen waaye yët bu mu tax ngeen fàtte njaaloo de mbokk njaaloo ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk yàlla boole na ko bokkaale boole ko rey nit ne képp koo xam ne day def loolu alkaange moo koy ñeel góor góorlu leen seen kemtalal kattan ci moytu lépp loo xam ne nii riba la bul jël riba ca banque ba bul joxe riba ci lenn loo xame ne ni ay bor la yooyu jël moytu leen bépp alal boo xam ne moomu leen ko ca kees ga la ca nger ga la ca lu mu mën a doon mbokk loolu yàkkamti sa wërsëg la ba pare indil sa bopp ay fitna rek la góor góorlu leen yéen ndaw ñi bu leen yàkkamti seen wërsëg li yàlla bind ci yow bala ngaa dee danga ko matal kenn mënu la koo xañ góor góorlu leen seen kemtalal kattanit sàmm leen la nga xam ne mooy mbokk gi ay yéen ndaw ñi mbokk day xewi ne léegi waaye xam leen ni diine ji ñuy dund day mooy diinay ah rafetal jëm ci say mbokk mbokk yàlla da ko wutal tuur ci turam arrahim te yàlla mooy arrahman yàlla ne ku ko jokk danaa ko jokk ku ko dagg danaa ko dagg góorgóorlu yéen naka noonu itamit ci dëkkandoo yi bokk na ci musiba bi gën a garaaw doomu aadama bi ay dëkkandoom jéppi ko ngir lor goy jóge ca ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ya'munu jaaruhu bawaqihu képp koo xam ne ay dëkkandoom day ñoom wóolu wu ñu ayam lu ngeen man ci lu baax def leen ko ci ñoom lii gannaaw loolu itamit lay priorité di priorité mooy ñi leen gën a jege ay yéen borom kër yi ragal leen yàlla ci soxna yi yonent bi alayhi salaam nee na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam man nag maa gën sama njaboot loolu li muy firi mooy taxaw leen te njaboot gi xiirtal leen ah ba ñuy jaamu yàlla armaal yéen a fees ñuy reere ganaar guddeeg bëccëg ca teete woon njaboot gi ci jaamu yàlla échec nga àdduna échec nga àllaaxira góor góorlu leen yërëm leen leen waaye yéen soxna yi itamit yàlla da leen a teg ngeen jaamoo yàlla respecté seen jëkkër màggal seen jëkkër même bu doon kër gi yaaka moom même bu doon chômeur la yow yaay joxe dépense teewul suñu borom dala sant nga màggal ko respecté ko topp ay ndigalam fii ak terewu la fii ak diggalu la loo xam ne dafa xaraam gannaaw ba ñu góorgóorlu ci njaboot gi ñoo maandu seen diggante bëgg leen teete leen waaye itamit nga la wa yéen njaboot xam leen ne day bokk na ca la ngeen xam ne moom ngeen war a gën a sàkkoo ngërëmal yàlla mooy fexe ba seen waajur gërëm leen bépp njaboot bu am ngërëmal way jur ci amewu ko mooy yàlla dana am ngërëmal yàlla heure boo bëggee réussir ci àdduna ak àllaaxira fexeel ba sa xolu waajur sedd ci yow ñu lay ñaanal guddeeg bëccëg lii de mbokk bu amee wallahi da nga doon koo xam ne nii ku texe nga mbokk julit iid baa ngi nii ñu bari ñañ ko àndaloon daaw tey ña nga seen boroom yal na yàlla jéggal leen ci yërëm leen aka bari ñu ñu àndaloon iid bii daaw tey ñi nga tëdd ci lalu hôpital yi aka bari ñoo xamee ni ni tey ñi ngi nekk ci ay fitna ay prison wala tumuranke ñun suñu borom yàlla wërsëgal ñu ñu toog fii alhamdulillah alhamdulillah suñu borom yàlla niim ñu dajalee fii danañu mas a dajale ca kanamam ëllëg yowmal qiyaama keroog bu ñu àttee tey ku nekk yaa ngi génn jëm sa kër keroog it ku nekk dana génn jëm sa kër imma al janna wa imma naar yal na yàlla defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay nañu góorgóorlu xam ne bisu tey bi mooy bisu alxajjul akbar képp koo xam ne yàlla wërsëgaloon na ko mu mën a rendi xarum tabaskeem ci bis bi mooy la gën a màgg heure boo xamee ne nii am nga yenn gàllankoor dara nekkul ci nga rendi ko suba gannaaw suba loolu lépp dara nekku ca naka noonu itamit ne bari woon nañu ay lu bari ñuy def ne fokk imam day rendi nga doog a rendi donte ne la gën a wér gën a dëgër mooy képp ku julli ba pare rek même bu imam rendeegul da nga rendi donte ne bu ñu paree ci julli gi daan jéggulu ci nuyoo yéeg bi dema noonu la ñu yàlla wërsëgal daan dem rendi ko képp koo xam ne yaa ngi rendi da ngay wax bismillah wallahu akbar bu la neexee wax sa làmmiñ wala yemale ko sa xol mooy yàlla lii day maa ngi ko yéene man ak sama njaboot même ña nga xam ne nekkuñu ca kër ga sax loolu lépp dana doon lu leen yóbbaaleel ca xam leen ne suñu borom yàlla nee na soxluwuma yàpp yi soxluwuma deret di li ma soxla mooy ragal yàlla gi nekk ci yéen ca mooy yàlla maa ngi nii de jébbalu la di rendi sama xar mi waaye boo ma santoon ma rendi sama njaboot danaa leen rendi soo ma santoon ma tëdd ñu rendi ma danaa tëdd ñu rendi ma lii mooy la nga xam ne mbokk moom la ñuy tabaski di fàttali yàlla na borom bi yàlla rafetal suñu jébbalu allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين